gannaaw bi ma nuyoo ñëpp ñi fi nekk di sant suñu borom bu baax a baax di wax ni gannaaw bi ñu joxe ay don yi nga xam ne dafa jóge ci madame la première dame euh, am na ñett ñaari weer ci gannaaw fii ci ville de Thiès euh, madame la première dame euh, dafa jël. lu toll na la mu joxe woon mu jox ñu ko ñun ñi nga xam ni ñu ngi féete ci kaw gi muy téeméeri chaise roulante téeméeri déambulateur mooy yi nga xam ni da nga koy téye teg pour nga mën a dox ak ay chaise hygiénique ak ay couche hygiénique aussi yooyu mag yi ñoo koy jëfandikoo Ah, loolu dañu ci gërëm bu baax ma dem la première dame xam nañu ni bi ñu bi yàlla defee président de la république makisal Sall yi teg ko ci boppi réew moom noppiwul benn yoon di jàppale askan def na ko fu ne ci réew tey yàlla def na am na lu mu ñu jagleel donc dañu ko ci gërëm dañ ko ci sant naturellement ku ko gërëm sant ko war a sant monsieur le président de la république bi nga xam ni ñépp xam nañu ni jëmale Sénégal kanam moo ko tax a jóg donc dañ ci am mbégte bu réere li wax ni euh, matériel bi mu maye incha allah dina dem ca fa mu war a dem ña ko war a jot incha allah dinañu ko jot te fas nañu yéene képp ko jot ñu xam turam ñu xam numéro téléphone ñu xam maire bi nga xam ni moom moo ko fa yóbbu parce que président moo ñu digal transparence donc lii nii dafa jaar suñu loxo pour dem ci ay yeneen loxo ñaan nañ suñ borom def ko na mu ware nit ñi am ci mbégte parce que loolu mooy mbébétu madame la première dame donc damay gërëm ñëpp di gërëm presse bi aussi di sant di wax ni tey waa département de Thiès am nañu mbégte bu réere ci li ñu première dame defal dire que madame la première dame depuis l'avènement du président Macky Sall au pouvoir elle n'a jamais cessé d'être à côté des populations. Ce sera à Ziguinchor, ce sera à Saint-Louis, ce sera à Matam, ce sera partout sur le territoire national. Aujourd'hui, nous sommes encore à Thiès, après la remise d'il y a deux mois. Ce va servir aux populations de la zone rurale de Thiès, appelée département. Ces 100 chaises seront distribuées de manière équitable dans toutes les communes du département, sans exception aucune. Et elles iront aux personnes qui en ont besoin. Et ceci Madame la Première Dame recevra le feedback des noms des personnes attributaires, des numéros de téléphone des personnes attributaires et de tous les maires qui auront reçu, donc des, que ce soit des déambulateurs ou des chaises roulantes. Parce que nous sommes dans la transparence, c'est ce que nous a indiqué Monsieur le Président de la République. Donc c'est la raison pour laquelle nous remercions Madame la Première Dame et par-delà, naturellement, nous ne pouvons ne pas remercier Monsieur le Président de la République. Donc c'est pour dire aux populations du département de Thiès que le don que voici euh, vous parviendra dans les jours prochains. Merci beaucoup.